ñëwee ci cas yi euh, dinaa ci énumérer yi may dégg souvent lu ci mel ni euh, sécheresse vaginal maanaam euh, jigéen boo xamante ni pour mu sëy ak borom këram problème lay doon parce que ni mu war a tooyee du ko tooyee noonu loolu déjà cas mel noonu lan moo koy lan moo koy créer lan moo koy causer lan moo tax jigéen di dem bay toll foofu noonu Aïcha posé nga ma question bu ma neex ndax problème bu doy waar la instant bi ma pandémie la xaw ma épidémie la mais c'est général. Hmm. daanaka mën naa ne quatre-vingt-dix pour cent des femmes en souffrent te nekkatul âge avant boo toloon l'âge de la ménopause ngay am sécheresse vaginal mais instant bi ay vingt-deux ans vingt-trois ans vingt mën na am sécheresse vaginale. am na bien sûr. vingt-deux ans le stress waaw principal facteur bi moom stress. yéen xam ngeen sécheresse vaginale. sécheresse vaginale mooy. kebe nee na xam na. <laughs> waaw sécheresse vaginale mooy jigéen joo xamante ni buy sëy kanamam du tooy comme il le faut te day metti ci moom du am benn plaisir te nu muy méttee ci moom noonu lay méttee ci ku góor gi mhm. def l'acte mais du facile. du neex du facile te c'est fréquent Aïcha sunu produit yi gën a dox bokk na ci produit yuy lubrifié. yuy faj loolu yuy faj loolu. ok waaw tey nit mën na nekk këram. Mm. am problème boobu. Mm-hmm. am sécheresse mhm. vaginale mhm. mais du am xaalis bu mu mën a demee pharmacie mhm. pour jënd lubrifiant du am xaalis bu mu mën a ñëwee ci joor pour mu jox ko ci astuce yi tey ki nga xamante ni mu ngi këram am problème boobu euh, facilement ay yan astuce de maison nga koy proposer xooñ sa baax na xooñ xooñ waaw luy xooñ <laughs> boo toogee ñànkatan ñànkatan benn mm. boo dinee sama olof na leeru bambara bay tax xooñ xooñ. xooñ bi ci suuf. xooñ bi ci suuf. Mm. da nga koy jël nga xooj ko. Mm-hmm. boo ko xoojee après nga jël soow def ko ci nga naan ay une heure de temps mais deux heures de temps avant le coucher loolu yëpp buy metti su bu bu fekk loolu dafay dafay dafay dafay impossible pour la femme. Mm-hmm. ut sa ceeb. ceeb ceeb boo jëndee ceeb cent franc digg cent franc gowee cent franc raxas ko ba mu set nga baxal di ko naan macha allah. dina la jox xet bu neex. Mhm. Euh, dina dina dina la lubrifier macha allah macha allah. te baax na trop si jigéen. alors te sécheresse vaginale lu tëb mu gën a fréquent fii Sénégal. Mhm. sénégalaise mën nañ sañse mën nañ toog lu neex mais favoriser wul intimité intimité. balaa ñoo kontaan dañuy bàyyi ba guddi lekk kilo mburu te à di de 17 jigéen waroo lekk mburu soo lekkee mburu lu mu lay def. mburu dafa c'est dur dafa wow da wow ceeb <laughs> c'est vrai mais chez heure bii boo demee Mali ay 17 jigéen lu muy lekk ay sombi ay fonde ah. les aliments liquidiens waaw ay mbaxal affaire yu yu tooy lu muy tooy noonu noonu la lay tooyalee. mais sénégalais balaa Sénégal Sénégal mburu la seen bopp mburu fataay amul gër moo tax elles sont toutes chèches <laughs> madame nee na à partir de jigéen warul lekk mburu hmm. da lay wowal mburu fataay hamburger les aliments pâteux nañ ko wàññi ngir yàlla ñuy naan ay fondé ay fondé sombi ceeb sombi dugub eh, def tooyal <laughs> ku ko ñam doo ko bàyyati te dañuy jàpp ne yooyu ay valoriser tuñu ko c'est important alors sécheresse vaginale benn kaala ci kaa yi nga xamante ni des fois dañ koy dégg mm-hmm. beneen bi mooy infection vaginale mm-hmm. sécheresse vaginale bi dama fàtte benn affaire mm. ndax instant bii nii des fois réseaux sociaux day day réeral nit ndax ku jug dugal sa astuce maa ngi jégalu ndax loolu il ma ma leeral ko. Mhm. parce que jigéen ku bu ne war nga xam tu es quel genre de femme. tu es une femme sèche ou femme fontaine lan moo adéquat ak femme sèche lan moo adéquat ak femme fontaine tey clou de girofle ku jug. baxal xorompoole baxal naan ku jug baxal naan xorompoole certes baax na baax na trop trop trop mais. dafa am ci ñu mu baax boo amee sécheresse vaginale. tu es une femme sèche ngay naan kuréel girofle da ngay gën a wow. nga ni. ngay laal jëkka da ngay gën a wow ndax ñoom ñaar ñëpp c'est des produits yoo xamante ni saa resserre le vagin dans les normes ñun bu la jaayee resserre dañ lay jox di lay lubrifier. léegi yow boo bàyyi leen xorom pole bi ngeen di baxal di naan baxal di naan di ci raxas sa kanam certes baax na baax na trop mais à condition nga nekk une femme fontaine. fontaine maanaam jigéen boo xamante ni day tooy da ngay tooy amul problème amul problème moom mën na ko utiliser day day day resserré waat da koy delluwaat ndax tout le temps jigéen bi nga xamante ni dafay day tooy normal moom elle a besoin de quelque chose qui lui resserre